alors euh, du ñu nekkoon ci programme euh, bi nga xam ni moom mooy programme bi ngeen euh, programme bi ngeen teg ci loxo li nga xam moom mooy sénégalais yi mhm. tey ADN daal di ci indi li nga xam ni moom mooy programme bu bees mhm. daal di koy jox li nga xam ni moom mooy sénégalais yi ñu gis ni ay artisans rek ñoom ñoo ci nekk alors tey bu ñuy bu ñuy continuer ci fa ñu nekkoon ana lan nga ñu ci mën a toftal waa mooy li ma waxoon ci ADL rek ànd doole liggéeykat yi mhm. list bii Moustapha list bi histoire bind na ko Mm. boo liggéey ñu ne artisan yi njëkk sos ADL. Mm-hmm. moo dëggee xéewal ci la bokk. loolu moom incha allahu rabi day continuer. Mm-hmm. suñu programme nag comme ni ma ko waxee suñuy góom ak mm-hmm. suñuy jafe-jafe ñun ñoo koy dund. ndax ni ma waxoon léegi laay waxaat méttiwaayu dëkk bi. xëy na nag mënta ñàkk parce que nguur gu bees bu ñëwee. Euh, balaa yëf yee doxaat bay tourné dafay xaw a am ay jafe-jafe. Mhm. waaye nag du ñëpp ko yéegee noonu rawatina ñi nga xamante ni seen loxo dafa xaw a euh, dañoo xaw a. néew doole ginnaaw. Mhm. place yi ñun ñi nga xamante ni dañuy wàcc terrain koo fekk dafa toog. Mhm. ñun dañuy am lu ñu metti lool jafe-jafe yi ñuy diis te mënuñu ci dara. mooy dëkk bi dëgër na am nañu ay jafe-jafe courant am nañu ay jafe-jafe location te mënuñu ci dara. léegi nag lu mel ni tenue scolaire xay na. moment bii bu fekkoon deuxième phase bi ñëw na. Mhm. au moins ñi am ci lu ñuy yëngu sax dinañ ci xaw a jàppandiku ba dëkk bi di di di di dox ni mu ni mu war a doxee. Mhm. boo xoolee yenn commandes yi publiques yépp ñu ci bëri mënatuñ cee jot soo amut euh, branlon comme ni ñu koy faral di waxee. Mhm. xëy na yooyu yëpp yàlla mën naa def ba jeexal ko waaye yooyu bokk na ci yi nga xamante ni ñun mooy yi nga xamante ni moom la ñuy càmbar. buñ gisee boo demee ci mobilier national gis nga ko bureau boo dugg doo fa fekk Médine Sénégal. Mhm. te menuisier yi dañuy liggéey ay table yu rafet te lool sax defe naa président souligné na ko yooyu dafay war a jeex mhm. bant mi ngi gën a cher chaque jour bois day gën a yokk amut ñoom fu ñu ko jaaye nga dem ci bijoutier bi or bi noonu Sénégal amul comptoir d'or mhm. nga dem ci euh, wàllu wàllu wàllu der yi tey fi mu toll nii boo xoolee mooy cordonnier yi cordonnier yi mhm. fii la ñuy defee tabaski fii la ñuy defee màggal et cetera fii la ñuy mhm. jënd see der yi mhm. yóbbu ko bitim réew wulli ko indiwaat ñu ko ñun di ñu ko jaay ci prix boo xamante ni pour ñu jënd ko jaay benn dàll bu dix mille francs sax tout à fait un problème te yooyu ay jafe-jafe la yoo xamante ni mën naa koy lim fii ba suba du jeex yooyu yépp nag gis nañu li gën a sooxee sooxeel artisanat ci la bokk ñu dajale ko boole ko mu nekk jafe yoo xamante ni bu suñu borom dimbalee incha allahu rabbi ba ñu am ndam la 17. Mhm. incha allah yooyu yëpp bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii mi ngi ci suñu programme ba ci ay test yu ci bari yoo xamante ni war ni fi na loo xamante ni boo ko bëggee faaw nga am ay test yu ci bari yoo xamante ni da nga koy soppiwaat. Mhm. ba mu mën a ànd ak jamono mhm. ñi nga xamante ni ñooy suñuy ndaw nekk ci bërëbu liggéeykaay yi mën a gis seen bopp ci li ñuy liggéey. Mhm. loolu naa ne xëy na bu ñu ko toppee mën naa la ci limal lu bari. ci suñu programme man feebar faju xiif lekk location. ñoom ci at ci ci jaay ak ñënd bi rek dama la tënkal pour le moment nii artisan artisans am mutuelle sociale santé des artisans. d'accord commencé na ba amna artisans yu bari inscrire nañ ñi ngi feebar di faju mhm. ndax man dama koy faral di wax mané ne leen inscrire leen même ku fébar mhm. sa xaalis mi ngi faj ñu fébar mhm. te commencé na mutuelle sociale santé des artisans lancé nañ ko bu yàgg actuellement ni mi ngi fonctionner bu fekké ni formation machallah allah 3FPT li muy joxe ci formation bari na. mais souvent nak lu ci bari formation yi da dul and ak accompagnement ndax dama koy faral di wax. ndax du fekkee da ngay joxe formation. ñu def formation ba pare costume Sénégal gis nga comme li may wax nii. Mhm. léegi moom macha allah mais nag bu paree ba pare nga toog. Mhm. amul sens ndax tey jii boo demee ci DER nee nañ mooy de quarante ans. mais ñun fii da gis ko am 40 di jàng métier. dëgg la loolu man kaas naa ko fu nekk. dëgg la léegi nag ki nga xamante ni def na formation. Mhm. am na atelier yor na métier mi ngi ci boppam fees na del toog amul xaalis bu mu liggéey. Mhm. nan lay liggéey tout à fait un problème. Mhm. kon formation yi nay ànd ak accompagnement. foo durulement boo xamante ni di nga mën a jënd ay tissus. def ay prêt à porter soit nga am boutique soit que nga topp foire. parce que artisan su fekkee ni defal nga ko formation. mu yokk ay capacité nga defal ko financement mu jënd tissu mhm. nga wutal ko programme foire mu dem jaay bu ñëwee lan lay soxla mhm. foncier mhm. mooy cité des artisans boo xamante ne xaalis ba muy am bu ëllëgee artisan bu liggéeyee ba retraité na am fu mu dugg gis nañu nag bépp artisan boo xamante ne liggéey na ba màgget amul lenn loo xamante ne moo koy sukkurir boo gisee yooyu yëpp ñu di ko xeex moom laa la tënkal sànq dama ne la su ma lu ko limalee du ñu fi jóge waaye yooyu yëpp mu ngi sunu programme boo xamante ne bu ñu yàlla dimbalee incha allah le secteur de l' artisanat dina mën a amaat beneen changement bu bokkul ak bi mu nekk incha allah. ma ma ma allez mhm. ñu boole ci cadre de vie bi. merci des fois da ngay dem ci secteur boo xam ne da nga fay fekk. Mhm. ñu occupé ko noo xam ne da nga naan ak déedéet. Mhm. exemple mooy jël demal Kër Moussa nga xool forêt ba. ci ginnaaw station. nga xool na fa mécanicien insécurité ba fa am.

xam ni ngeen di liggéeyee noonu la nit ñi tamit amee droit mën a dox mën a jàll hmm. ba ci ambulant yi ba ci ba ci ba ci ba ci donc doon man maa sañ def maa ko laaj hmm. maa bëgg def fu ma neex tamit laaj occupé parce que tey da ngay dem ci des cirque quartier yoo xam ni hmm. da gis am mécanicien baa nga gis ab menuisier baa nga gis baa nga gis nga gis ab ni koy def dañuy wóor nit ñi ma ngay xaj cadre vie nit ñi fa dëkk donc loolu tamit ngeen boole waat ko ci seen programme bi mooy état bi wutal leen ay endroit wutal leen ay espace yoo xam ni. Mhm. xam nga boo demee forêt classée de Mbao bee. Mhm. nga xam ni yaatoon na ne bàyyi ko Ndiobba Diagne. ñu leen fa dafa leen fa ay centre yu baax. Mhm. mécanicien yi nekk fee tôlier yi nekk fële. tailleur yi nekk fële. nangam nag xam tey day dem ba sax day dund suñu tourisme bi. tey jii boo nga ne man su ma bëggee dara. comme ni muy euh, transport. su ma bëggee dem Louga ba dem Ndar. damay dem ba Beau Maraîcher. Mhm. jël fa oto yóbbu ma. Mhm. baa ma dem beneen garage yóbbu yow. Mhm. boobaa man mécanicien laa. ah man kat boo dee bërëb sangam. mécanicien yëpp nga fa. BM nga fa. tôlier nga fa. façon mécanicien boobu fekk ko fa. ñu encadré lu organisé leen. ba boo fa duggee yow da ngay alhamdulilah waaye néew na nga dem ci place artisan. nga bëgg a toog da ko jox sa bagage ak dem. benn ba sa des tamit foo may daanelee. Mhm. mooy yenn artisans naa jël bagage nit ñi. Mhm. liggéey ñu ko di ko exposé di ko fa amul njariñ. Mhm. gis nga nit bu la liggéeyloo te lim liggéey liggéeyloo munu munu laa fay. delloo ko yëfu mu xam fu mu ko def mais bu mu la encombré. am na solo loolu loolu nag moom loolu moom maa la maa la ciy tontu. loolu nag. artisans yi moom léegi ñoom ñoo liggéey ba pare te bi duñ ko jël si. moom mooy waaw mooy. loolu bi da ngay gis koo xamante ni day yor benn sagari cinq millions exemple ci waxin quoi ñu jégal ma ci kàddu bi ndax cinq millions du sagar dem jëndee ko dem jëndee ko benn oto oto bi paan mënoo ko defar dëgg la wala nga bëgg a bës wala nga am tur dem jënd benn euh, exemple bëgguma cité ay turu marque oto mais nga oto boo xamante ni bu paanee mënoo ko dépanne mm-hmm. mais garage yi fees dellek oto oto ya fa nekk seen borom a ko mënta dépanne mm-hmm. da ngay mujj borom dalay woon ne la oto yi boo ko ñëwul boo ko jël si dinaa ko takk yóbbu ko wala ma puusal ko ba ci bitt nga bàyyi ko fa mm-hmm. ñun ñii dañuy ñaw ba pare suñu atelier yaa ngi fees delle ki ñaw bi dañ koy exposé pour décorer clients yi ñoo ko jël seetul mm-hmm. kon léegi defe naa ni bu dee wàll organisation léegi macha allah. Mm-hmm. li nga wax nii tamit mooy li ma la waxoon léegi rek nee naa la dama cee juqi Mhm. waaye yaakaar naa ne ñun ñi wàcc sur le terrain. ànd ak président Issa Dieye mu nekk mécanicien. Mhm. garage am nekk fii Massalika Jinaan mhm. yaakaar naa ne di def porte à porte. garage yi fu nañu dugg nañ fa. yakana naa suñu programme organisation moo ci njëkk te lool defe naa mi ngi suñu buut programme. <laughs> alors euh, loolu am na solo bu baaxa baax mom moy tay euh moy li ñu wax sank nee nañu euh, défaron nañu ben ben ben ben fi nga xamni bërepp bi nga xamni dafa nek ba diwaanu jëm ñaajo ñuy woon pour les artisans ñu war fa mëna dem mais tay artisans yi da ngay gis ku yewu sax du am lu mu ndéké c'est il faut qu'on il faut qu'on se dise la vérité quoi mom moy ñu bayé ñu bayé nëbbantu bi mm-hmm. parce que tay sac la. mooy nga yeewu sa kër rek 10 heures jot wala avant 10 heures sax 8 heures nga génn dem wuti ji

à la euh, quarante ans mais nañ ko jéem que ñi fi am quarante ans tey ñu ngi toll seen diggu doole ñu ngi bëgg lu ñu ndekkee ñu ngi bëgg lu ñu jox seen njaboot mënuñu ko am léegi tey ñu indi fi benn DER bi nga xam si pour les sénégalais nga la waaye nañu nañu nañu tourné xel lii nga xam ni moom mooy euh, les sénégalais alors moom euh, Mariama bu ma ñëwee ci yow uh-huh. nga daal di may tey farañ fàcceel li nga xam moom mooy programme bi nga xam ni teg nga ko ci loxo sénégalais yi waaw xam nga dañuy wax ne saku bu amul dara du taxaw comme saako bu amul dara du taxaw te gis nañ fi saako bu ne nag mhm. gis nañ saako dugub gis nañ saako ceeb gis nañ saako ñebe waaye mhm. saako wax moom amagul <laughs> bu amee man gisagu ma ko maanaam saako wax daal du fees <laughs> xam nga kooku moom mën ngay sol fii ba déwén du mhm. <laughs> tax dañ muy lu jeex mu du ah bëgg donc réew mi ñépp ñoo ko bokk mhm. bu demee rek ñun ñëpp la demal kon mhm. bu demee ñu ñépp la demal nag mhm. ah nañuy dañuy góorgóorlu rek mu dem ci kaw loolu ñu xamante ne assemblée ay loi lañ fay voté bu ñuy ñëw doonte ñu fal yépp sa dërëm sama dërëm fistinu kaneen loolu lañ leen di fay

Mm-hmm. mu def tole kon nag war nañu xam ne sunu dañu war a jàpp tenir compte bu baax a baax a baax. si mm-hmm. éducation ndaw parce que mm-hmm. ndaw ñu ñooy màgg ëllëg. kon nag ñooñu seen njàng ak seen lépp dañ leen a war a mettre dans excellente conditions. encadré leen. <coughs> bu ñu jógee ci wàllu éducation. bu ñu ñëwee par exemple ci agriculture donte léegi boole nañ agriculture ak élevage ak yooyu yëpp. bu ñu ñëwee ci côté agriculture ñu gis ne. wax dëgg yàlla loolu tamit lu ñuy dénoncé la lu ñu ko rafetloo. Mhm. nit ku nekk rek mën na jóg ne gros producteur la. Mhm. nit ku nekk mën na jóg rek ne opérateur semencier la. Mhm. nekk daal di ne opérateur semencier. ci kaw loolu yow doo jox gëdd doo jox acte amul surveillance amul suivi. ci li ngay joxe lan la donc loolu aussi. mënuñoo wax souveraineté alimentaire. Mm-hmm. te accès aux terres. Mm-hmm. di jafe. dëgg pose problème. mënuñu. Mm-hmm. bu ñu nee par exemple un hectare. de dugub de de de de dugub booy booy booy booy semer. ñu ne la cinq kilogrammes. mën na ko semer. te paysan bi bay fayul ndox. fayul courant bi. nekk ca tool ba laa wax. ndox mi suñu borom a ko wàccee su fekkee joxe nañ ko accès dedans aux terres je pense ne bu boobaa su béyee yëf yi dana jàppale parce que ku lekkul mënoo wér te ku wérul mënoo liggéey mm-hmm. te ku wér ku liggéeyul aussi mënoo dox rentabilité sa dëkk mm-hmm. dox côté boobu aussi ñu jot xalaat ci côté boobu mm-hmm. bi si des gis nañ ne suñu liste y a des ci biir parce que nous avons ne nit ñaa ngi yenu seen loxo di mhm. sécurité alimentaire souveraineté alimentaire mhm. mais sécurité alimentaire souveraineté alimentaire nous devons, dem tant que ñi ci ni ñi nga ñoo mhm. par exemple dispenser de bonnes formations. des formations adéquates pour loolu muy devons ñaareel ba nous, it ñu am des matières premières de qualité. Mhm. matières premières de qualité il faut que suivre l'itinéraire de la base à la récolte. Mhm. Moi suis ñuy wax ci semi ba pour la vie. tant que maîtriser woo nous avons une souveraineté alimentaire. Nous avons une ne donc daal donc souveraineté alimentaire sécurité alimentaire Nous nañu la consommation.

dimanche. Mhm. le vendredi ñu ne la cere. Mhm. ça veut dire que ne cere euh, ak laax rek la ñu teg pour béy. Mhm. léegi ñi ci des li ñu béy surproduction boobu ñu koy def. pour nga bëgg koo exporter ça pose problème. sinon ñan ñoo ko ñan lañ koy jox mooy les étrangers. bu ko defee yooyu yëpp ça pose problème. mais man ban mbir kii dafa am loo xam ni. da nga ko li nga exposé nii dafa am solo. waaye tey bu ñu déggee. gouvernement bi fi nekk. dañu ne fii. deux mille vingt neuf. Mm-hmm. lu jëm ci agriculture. Mm-hmm. dix pour cent lañ ci def ci budget. Mm-hmm. budget national waaw ak ak lii ak wax fii. est-ce que ak dix pour cent mën naa nekk. dix pour cent mënul a nekk. doonte nag dañuy wax ne xam ma naka la ko maanaam benn moo gën neen. waaw benn moo gën neen danañ leen ko nangul pour l'instant. Mm. li tax ñu koy nangu pour l'instant benn day gën neen te ñuy soog a agsi non non man du ma xaaral maa ngi ñëw ah, ah, non non xaaral maa non mais ku yëngu ci agriculture laa ko xam domaine bi. Mm-hmm. donc bu ma ko waxee am na fu ma ko teg. Mm-hmm. Mm-hmm. non man fi doon xaar pour nga yóbbaale ko. mooy ñii kat. ku xiif ku xiif dangay gaaw ñu jox la nga la lekk. wax mooy dix pour yi jëm. Ah. ñun kat bu ñu demee ensemble national. Ah. te comme budget bu bees. Ah. lañu war a taxawal. Mm-hmm. ñun kat bu ñu àggee. Mm-hmm. bu la ministre ñëwee. Mm-hmm. dañ ko proposé ndax lii ñu fi exposé. ak dix pour cent yi dana dana dana néew. kon dañ ko wax nañ ko yokk ba 15 pour cent ba 20 pour cent. mais foofu loolu moom moo tax mun la bon en fait actuellement ci benn moom moo moom moo tane nen ñu commencé ci kii. moo tax moo tax benn moo gën nen. waaw benn benn bi benn état parce que wàññi boo gis ci benn état xam nga benn état. Mm-hmm. Mm-hmm. benn état. Mm-hmm. mooy day ànd ak moom ba 2029. d'accord état li ñu wax. mooy fii ba 2029. c'est le 10 pour cent. du budget national. d'accord. moo tax man kon. te bu ñu accès ñoom mën nañ def lu tuuti pour mu gën a mais en tant que élu. tey ministre de l' agriculture ñëw na. Mhm. mu ne ah ministre de l' agriculture et de mhm. fii ngeen jëm. Mhm. man expert laa ci. xam naa ci nangam ak nangam. tey fii bu ngeen ko bëggee. ndax euh, bala nga naan da nga ne. benn mooy suuf si il faut ngeen jox ko ña ko war a moom. ndax nit da koy delloo la moom ndax nit ki munoo ne. damay bay dugub. te doo réeree dugub. kii réeree dugub. kooku ngay jox dugub ndax moo xam dugub la muy jariñ mm-hmm. tey ñun kat lii nga indi tey danañ ko teg boo ci defee dix pour cent mm-hmm. mën na néew fii deux mille vingt neuf mm-hmm. souveraineté alimentaire bi nga bëgg néew ma du am waaye dana yeex kon au lieu de pour cent si budget bi def na ko vingt pour cent mbay ci lool nga baal ma xam nga mooy mooy li ñu doon wax rek ba type de député

jógee ci côté côté agriculture bi. Mhm. jóge nañ ci éducation ñëw nañ ci agriculture dañuy mhm. dem ci santé. d'accord bu ministre de la santé ñëwee. Mhm. war nañoo mën a toog wax ak moom ban loi la ñuy voté. ndaxte aussi gis nañ opito yi. maladie ni ñuy sonne. da ngay dem accompagner bala nga koy xam nga gis ku feebar. nga wala nga fekk accompagnant foofu. donc vraiment war nañ def politique dolli bopp politique sociale boo xamante ne. dana mën a alléger yu bari ci côté boobu noonu. beneen bi si des aussi mooy par exemple comme ñu cité léegi ah euh, ci les comme Water par exemple. Mm. financement yeeg yooyu. Mm. xam nga bu ñu nee bu dee na jigéen. Mm-hmm. amul âge mm-hmm. limite d'âge. mais bu dee góor day am quarante ans. Mm-hmm. effectivement quarante léegi dafa gàtt soro parce que diggante nit ki. fa muy jàngee. Mm. bay defi estage mm-hmm. amaan na nañ ko jël amaan na duñ ko jël. mu mm-hmm. romb quarante ans yi. Mm-hmm. parce que vraiment war nañoo waratu waratuñoo toll foo xamante ni taux de somage bi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. parce que nag euh, euh, euh, le pays a besoin de sa jeunesse hein. donc ñooñu faaw ñu jàppale leen pour mën a jokk joyanti lu ci bari fii. ba pare aussi tamit bu ñuy financer tamit. mënoo financer nit ki te former c'est-à-dire yow nga ñëw léegi ñu jox la xaalis nga ëmb ko pare soog a xalaat lan cay def. bala ngay réfléchir pour def benn pas na xaalis ba jeex na. Mhm. bu xaalis ba jeexee échéance fay ba jox mhm. doo am looy fay loolooy indi MP yi. Mhm. bu ko defee nag dañu war a mën a xool. ñu ñuy finance te ba pare aussi nit ki tamit bu ñu lay financé. ñu financé à hauteur de projet parce que nous, am par exemple un projet boo xamante ne. Mhm. un projet bancaire, mhm. boo xam au moins day def millions. Mhm. ñu jox la 2 millions. donc da nga ko lekk te doo def sa projet. bu ko defee léegi détournement d' objectif mooy am. yooyu day indi problème jooyantoo yu bare bare bare bare. beneen bi aussi ku mel que ministre de l'Intérieur, intérieur. su ñëwee war nañoo mën wax c'est vraiment phénomène boo xamante ne tamit dama koy lancer un cri de cœur mhm. mooy phénomène yi am léegi ci réseaux sociaux mhm. parce que gis nañ léegi vraiment mhm. yamatul sax ci xale yi yamatu si donc doo xamante sax léegi da ngay dem ba da ngay rus ndax li ngay gis da ngay dem ba poser question ne yow est-ce que dëkk bi nga nekk ni Sénégal bi nga nekk mooy Sénégalu mag ñi fi newoon ci ñàkk yar mhm. ci manque d'organisation mhm. ci am fit ci osé mhm. ñun Sénégal mosuñoo xam loolu orma la ñu xamoon yar la ñu xamoon loolu la jàngaloon mag ña lu tax léegi loolu war a ñëw daal di changer complètement xale gi genn wàll gi ñu baal ma daal di ñëw deres new complètement di folote nag entre li yu bokkul yaa ngi folote entre l'Occident et l'Afrique l'Occident mënoo ko jot Afrique yaa ngi koy bëgg a romb. Mhm. donc laa aussi bu boobaa yooyu yëpp aussi dana ci wax. Mhm. ci côté boobu noonu. Mhm. xoolaat réseaux sociaux yi. xoolaat digital bi. xool yëpp daal ci côté boobu war nga xamante ne danañ mën a jooyante parce que nag mënuñoo comprendre xale yoo xam ne boo ñëwee ci kër la sa maam ñemewu doon. sa yaay ñemewu ko sa papa ñemewu ko yow yaa am fit def ko. ñun dañoo xamoon ci dëkk ba ormal les chefs religieux mhm. jox leen seen wàccuwaay loolu la ñu xam te mooy suñu njiglaay tamit mhm. ci kum ci mën di doon mhm. fu mu ci mën di féetee loolu la xam ormal leen ndax yàlla moo leen ormal seen bopp dañoo liggéey ba toll foofu kon nag léegi nga gis xale yi ni ñu leen di def da ngay tiit yow ci sa bopp man de man damay tiit damay jékki-jékki gis benn intervention man ci sa bopp damay tiit kon nag yooyu aussi yooyu yëpp loo xam ne

Euh, ñu ngi leen di nuyu ah, yéen euh, les internautes yi nga xam ne yéen a ngi ci plateformes yi digitales yi euh, que ça soit TikTok YouTube sur toutes les plateformes digitales bu rafet bu seen média ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a Ngexox <laughs> alors tey dañuy ñëw ci tamit di dool di sensibiliser moom mooy tey gis nañu tey plateforme bi ëpp doole bi nga xam ndaw ñi dañ koy gën utiliser moom mooy TikTok té moy man ni koy waxé rek man TikTok néna euh marché mbedd la. Hmm. marché mbedd la mais deuxièmement aussi euh, tay dafa nek plateforme bi nga xam digital bi nga xam tay mën nañu jàngal mën nañ ci jàng aduna moom moy comme suñu borom nimu ñu wàccee fi ci kaw aduna ñukoy koy jaamu ça veut dire euh synthèse bobu mën nañ ko xolé ci TikTok moy da ngay gis da ngay dugg fi nga gis ñi dañuy wax lu baax nga dugg fi gis ñi di conscientiser nga dugg fi gis ñi di saga nga dugg fi gis ñi di xarabante est-ce que foofu lañu wara mëna tollu est-ce que ci loolu lañu wara mëna nek ci kaw loolu nak di ci remercier ki nga xamni mom moy toujours mo ngi régulariser nek ci TikTok bi don don nijaay don mag hmm, don aussi tamit ki nga xam tamit yaay la ci mom moy tonton Amath lii hein. tonton Amath lii ñu ngi lay ziar bu baaxa baaxa baax nek ci TikTok bi à chaque fois di régulariser les jeunes defe ni, nii ni. leen nii maman Fall également suñu maman nationale ñu ngi lay ziar bu baax a baax icône euh, ki nga xam ne moom euh, grand Mamadou euh, maman Fleur ñooñu ñëpp ñu ngi ci TikTok bi mais c'est des personnes yi nga xam à chaque fois ñu ngi régulariser rek pour bëgg bon en fait ndaw ñi am benn li nga xam moom mooy benn nouvelle vision alors bu ñu jógee ci foofu noonu Babacar. tey li nga xam ni moom mooy euh, parce que il faut que ma defee ko noonu parce que xam naa ne après Moustapha moom laay laaj lu mu xam ci programme euh, ci programme euh, <laughs> ci programme Momodo bi alors tey ci suñu programme Momo bon en fait lan nga ci mën a jàngat ak lan nga ci mën a retenir. waaw programme yu ambitieux la te programme la yoo xam ni. Mhm. bu ko état bi doxalee. Mhm. fa ñu jëm dina neex. Mhm. ndax député proposé la man. waaye du exécuter. man mhm. nga proposer lu baax. Mhm. kay exécuter. Mhm. def tout à fait le contraire. Hmm. boo déggee ni mu waxee sunu yaay wax ko. sëñ Modou wax ko tamit. mooy lenn lu ci nekk. fa mu war a nekk nan ko fa def. Hmm. waaye buñ ko fa defee kakaw yeyoo tamit nañ ko ko jox. ndax munoo ne man ab nappkat la ñu jox la tool ne la bayal. Hmm. néew ma dara du ñor de waaye mën naa yéex. Mhm. waaye boo nee nappkat la ñu jox la gaal bu baax. Mhm. jox lay machine. Mhm. jox lay juré. jox lay jox lay matériel yi nga soxla yëpp ngir bay yaakaar naa ne di nga fa def loo xam ne alhamdulilah rabbil alamin lañuy wax. mooy bu député yi ñëwee. li ñu war a voté. kii exécuté. lépp loo xam ne nee na lii da nga maa bëggee ngeen defal ma ko fii. Hmm. ngir ma am lii résultat bii. Hmm. buñ demee ba sa cëppaandaw ga nañu gis résultat booba. Hmm. moom lay wax sànq xam nga euh, li ñu naan nañ am majorité. nañ ñàkk majorité. am majorité ak ñàkk majorité. taxul exécutif bi ba ñu liggéey. lii firnde bi. mais ensemble national dañ ne biñ ko tasee léegi ñaata ñaata fan la ñaata semaine la ñaata weer la. est-ce euh, gouvernement bi liggéey ñu te dafa am ay mécanisme yo xam ni loi da koo teg lii bu amul lii dana ko fàtt kon loolu du lay loolu du lay day mel na ni euh, Sénégal daanaka réew moo xam ni ay séminaire keeki nangam ak nangam bu doon doxu réew réew mi dem na mm-hmm. mais fa ñu war toll mooy nañ bàyyi séminaire yi mm-hmm. nañu bàyyi formation yi nañu bàyyi nañu bàyyi te nekk à l'acte mm-hmm. sëñ bi laa dinaan wax naan ki tàmbali yéemu ma àgg mhm. li moomu yëpp. Mhm. mu ni booy jàpp ni dana jël waxi démbam ak jëfi tayam. Mhm. kon jëf mooy mottali wax. tey boo ne man projet nangam laa am. projet bii ak bii ak bii. pour ma def kat lii laa soxla. bañ nattal la loola. tey sa finalité ba loola dañ ko war a gis. te gis nga Sénégal man ci li ma xam. ensemble national ci lenn rek la ñuy juyaloo. bu ñu nee ba loi jot. politique war a taxaw ku si nekk war a xëcc sa boor. foofu rek la ñu amee problème. mais tey jii bu ñëw ministre de la santé ñëw na. kenn ku ci nekk ka dëkk ba toog bi jóg. ka dëkk ba gàddaafe. ka dëkk ba ndànd faal day ñëw taxaw na sama dëkk amul hôpital. tey ministre de la justice ñëw na. ka dëkk ba madaxul ñëw na ñun kat soxla maison de la justice. donc mhm. kenn ku ci nekk day wax kenn ku ci nekk day wax. Mhm. kon ñoom ñëpp ñoo bokk objectif bi mooy bien-être sénégalais. waaye nag bu ñu nee ba loi électorale taxaw nga xam ne xëccoo la booba dañ leen koy nangu waaye ci xëccu boobu nañ ko def ci nu mu gën a yellee nu mu gën a rafetee mm-hmm. nu mu gën a jibee mm-hmm. mais lii ma dégg mooy mm-hmm. tey kenn ku ci nekk sa domaine bi nga nekk tey bu fa ministre ba mu soxal bu ñëwee da nga ci mën a wax loo xam ni day am solo te beneen bi mooy ensemble national léegi ay jàng naa jàngul dootu lay ndax langue yu la li ëpp si langue Sénégal yi dañ dañ ko fay wax am na traduction. Mhm. bu ñaa ba ñu mënta dégg ñu leen di liyaaral di wax kon évolué mhm. la ca des nag mooy mhm. ña fa nekk. ñoo ko a nit dana sol yére du ko jot. nit sol yére mu jot ko. mooy ñi nga xam ne ñooy dagaan baatu askan wi. nañ fexe ba yére yi ñu solo nañ ko nag nañ leen mat sëkk bu mu leen jëkk. am na solo alors euh, Moustapha ci li nga xam ne moom mooy. Euh, Euh, Mamadou tey bon en fait programme bi nga xam ne ni euh, tënkal nañu ko ani yow sa gis-gis ci programme boobu noonu. waaw man damay damay dama koy rejoindre ci ci programme bi nga xam ne ku nekk tam yaa xam say maat ci laal. Mhm. yaa xam la ngay yëg. Mhm. parce que yaa xam aussi. non yow sa lal amul maat de. mais euh, xam nga du ñàkk ay yu am maat. Mhm. mais dafa wax lu am solo tout par rapport ak li nga xam ne mooy der yi utiliser. parce que pots yi fii dañ koy jëlee au Sénégal. jël pot yi defaree ko fii ba mu jekk dem yóbbu ko à l'extérieur mm-hmm. comme tubaab yi ñoom dañoo xarañ dañ koy defaraat de telle sorte que après li ñu di ko jaayaat suñuy artisan à des prix extraordinaires mm-hmm. léegi loolu est-ce que par rapport ak li nga xam ni tey bu député yi demee à l'Assemblée nationale ne a ah, monsieur le ministre de l'industrie par exemple mm-hmm. ñun de dañoo bëggoon ay usines yoo xam ni ñoo ñuy traité suñuy pot yi di ko defaree fii artisan yi di ko am ñu leen koy jaayee à des yoo xam ne moo gën a moins cher. Mhm. su ko defee da ngay dem ngaay rek xoolal ngaay yi defaree daal yi. ngaay boo fa demee jënd daal bu ñu neen daal yi Europe la doo ko wécc. Mhm. dem na ba sax ba ci gouvernement bi le président de la république day day day consommer local. Mhm. day sol daal lu ngaay Ousmane Sonko day sol daal lu ngaay. yenn yenn kilifa yi fi nii ñu nekk Sénégal bi dañuy dem ngaay di fa jënd ay daal. donc loolu mooy dimbali artisans yi. artisans parce que li mu wax ci ci programme bi. tey xam nga bu ministre toogee comme ni maman Mariama wax ministre bi toog yow sa xel màcc nga nekk benn député boo xam ne yow secteur bi nga nekk da nga ko maîtriser boo ko ci waxee xel du doy loolu mun nga ko yokk ba mu ba ba tey bu ko bu ko liggéeyee ñëpp ne gongo que député loolu lay jëriñ député ministre ñëwee am na yoo koy wax yoo xam ne danaa mm-hmm. ah man de xalaate ma ko woon nii mais bëgg naa ah woo le secteur par exemple ñu waxtaane ko trouver ay solution su ko defee secteur bi ma a nekk secteur boo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais moo war a dimbali mbokk sénégalais mais parfois aussi sénégalais day xeex mën mu sénégalais tey boo ko waroon jaay xéwal tu préfères dem jaay ko mbay parce que mbay mbay mbay mooy fay pourtant ñoo ñaar jaway sénégalais lañ pourtant waroon nañ ko mën a waxtaane ba ñoom ñaar ñëpp ñu wàññi leen ko ku nekk dem liggéey ku nekk dem tenter sa chance te sénégalais industrie bi xam lu tax dañoo mën liggéey suñu demee si menuisier yi bois bi dafa cher ça coûte li ñu koy jaayee aussi boo moytu fii lañ koy daggee ci réew mi. Mhm. dem defar ko ñëw dellu ko jaayaat. Mhm. à de prix yoo xam ne secteur bu ne rek am nañ ci loo xam ne buñ buñ ci waxtaanee. Mhm. trouver si ay solution sénégalais yi c' est pour les sénégalais. nañ ko def pour les sénégalais. mais pas pour le monde de l' extérieur. parce que wax nañ ko fii ci même ci ci wàllum gerte gi dañ ko doon wax dañ naan noonu dañuy jël gerte gi da ko jaay chinois yi. à des prix extraordinaire léegi nag bàyyi sénégalais yi fii. tey ñoo ngi wax wàllu agriture gis na lekk ak wax waxuma sonal na Sénégal yi de mais dafa am solo ci réew. Mhm. parce que nit bu lekkul tam du mën a liggéey. nit bu lekkul du mën a toog comme suñu xéewal di defar ay costume yu rafet yu mel nii. Mhm. ni nga xam ne dañuy def transformation di jël di jël dugub bi di ko transformé di ko def cere. Mhm. mais ñooñu bu ñu lekkul mais mënuñu ko def. te Sénégal dafa am Sénégal dafa am ay secteurs yoo xam ne ay secteurs yu am solo. muy artisanat bi. muy li nga xam ne mooy transformation di moom suñu maman yi def. tey da ngay xool les plats du jour. Mhm. mais imagine lundi ba ba samedi wala lundi ba dimanche gars yi ceeb rek la lekk. Mhm. mais c' est dangereux. te bu dul woon légumes yi duñ ko lekk. mooy am vitamine. waaw mhm. que yooyu yëpp gis nga mooy li may rek tey ñi nekk ci réew am na lu ñuy def defal artisan yi wala boo mel ne mécaniciens yi defal leen ko. ibbi ay man maanaam entreprise yi tëj nañ ko tijji. les entreprises qui sont fermées au Sénégal mm-hmm. je sais pas pour x raison mm-hmm. mais nañ xool nan la ñu ko le a tijjee mm-hmm. doomu Sénégal yi dem di fa liggéey ba pare mu am beneen affaire bu am solo mooy il faut qu'on les forme aussi parce que nit ki bu la formé aussi mënoo liggéey il faut nga am de la matière grise il faut nga am loo xam parce que moment bi li mu wax fi tey bu toogoo ak ministre bi mais nit ministre bu ko seetaanee danaan mais ndege léegi Sénégal am na ay nit ñu mel ñu nekk fi ak ñu fay bari ak ñu fay bari maîtriser seen domaine mbéy ngi nii bu nekkee ci biir domaine non da ko maîtriser parce que des fois dañuy toog ci plateau bi fii mu toog muy ruube la jax wala jaa jaxatoo parce que si domaine am la nekk. yaa ko wax de. man maa ko wax. xam nga loolu dama am solo. mais yooyu yëpp maanaam am maîtriser li ngay def dafa am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. tey quelqu'un comme par exemple. naar naar bee tax kenn xaatul maîtriser dara. waaw xam naar bi moom dafa. suñu maman wax na ko léegi. bu ñu bëggee gars yi maîtriser nga am réew. gis nga am réew am réew bu ñu koy defar dañuy defar ce qu'on appelle la jeunesse. Mm. éducation dafa am solo. sa moromu papa nga jox ko cër. Mhm. sa moromu yaay nga jox ko cër. sa moromu baay nga jox ko cër. Mhm. parce que bu ñu waxee baay ñi dañ yaakaar ni saaga du saaga. Mhm. parce que mag ñi dañ naan wax sa baay wala sa ndey. mais yooyu ay kàllaama wolof la. même wolof bi ñuy wax nii sax tey bu ñu la waxoon DJ Kato bindal olof da ngay am problème parce que maîtriser woo langue ñoo koy làkk nii nag. donc yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ne dañ ko war a def au Sénégal. tey boo demee assemblée nationale comme kii ni Mbaye ni ko waxee mais yàlla dégg na làkk yëpp. amna ñoo xam duñu dégg mais le fait que ñuy def ay ay gestes ñoom dinañ comprendre parce que ci réew mi lañ bokk. Mm-hmm. bu demee ba assemblée nationale ñuy jël ay handicapé di leen ci boole. Mm-hmm. ay sénégal lañ ci boole. Mm-hmm. comme loolu c'est important. képp ku nekk ci secteur rek nekk ci Sénégal te war a bokk dans les instances de décision. dañ cee war a bokk alors c'est très important Moustapha moom mooy euh, fi nga daanele y laay yëkkatee moom mooy tey bu ñu demee ba jël assemblée nationale euh, jël ay handicapé di leen ci dugal xam nga amna na am na am na bi ngay xam ni bon en fait beaucoup ñu koy dégg sax bu ñu ko rafetlu moom Sénégal devait avoir honte le Sénégal devait avoir honte dem ba

Mamadou euh, dañuy teunk rek ça veut dire bon en fait actuellement 10 euh, minutes je pense lañu dese ça veut dire ci teunk rek après ñu jaar fa bon en fait euh, joxe mot de la fin Euh voilà. waaw <coughs> ñoo ngi amaat mbégte bu baax. Mhm. di nuyu sunu maman macha allah lim développé amna solo. Mhm. Moustapha amna da nga bëgg a teg Babacar ma fété ak wala <laughs> <laughs> dana dana doy waar mu. bu la <laughs> ay Babacar liñ bokk daa bëri. waaw jërëjëf moom bokk la. Babacar moom daa teel a liñ bokk daa bëri moom. ndeysaan. maanaam ngeen moom daa teel a xam ne ñu bokk daa bëri moom. ndeysaan moom moo tax mu teel a nangu rek. Mm-hmm. ñi amaan mbégte ndax. xam mais xam nga loolu moom moo tax tey li ngeen bokk noonu. moo tax hmm. émission bi tey man sentiruma ko fenn. ni mu daan accueillir ñeneen ñi. ak ni mu la accueillir tey. non ni mu la accueillir tey neexuma dara. mais xanaa soxla woo xam jooy naa loja loja. franchement tey moom jooy naa. non yow xam-xam rek yow xam-xam nga soxla. <laughs> macha allah xam la la na ko xam-xam nga soxla te loolu la tegal ci ndax xam naa ne ñun buñ bëggoon wax lépp dañu hmm. cee far dimbale. dëgg la ndax ñun ñëpp Euh, développement rek moo ñu ñor. Mhm. man li may wax chaque jour rek tey ñun la waaye suba euh, sunuy doom. Mhm. sunuy jarbaat sunuy sët. xam naa ne di parafito di jaalewaale Moustapha Ba sama mhm. xel na ci moom nekkoon sama wëllëre ko moo xam koo xam ne sama wëllëre woon muy nit koo xam ne ku mës a yegg ci moom rek jekk nga te xëy na ni ma koy seedee nii ci émission bi ci waxtaan bi rek ci sama xel ñëw ci moom jommul ñu bari noonu lañ koy seedee moo tax lu baax rek am solo ndax réew mi ñun rek ñoo koy defar. te it ñi jëm ci réew mu doy war dama koy wax ndaw ñi. Mm-hmm. nañ dem jàng ci xam-xam. Mm-hmm. réew xam-xam moo koy doxal. Mm-hmm. ndaw dafa war a am xam-xam. ñun seetlu nañu sunu barabu liggéeykaay yi xale yi nangootuñu jàng métier bu baax. xëy na néew doole gi feeñ na ci. waaye waajur yi feeñ na ci ndax éducation de base ca biir kër gi la. Mhm. yow boo xëyee même pas semaine ah sa patron may la loo jëndee omo. ma fukki dërëm yoo jëndee omo kooku jàppalewu la ci jàng mhm. métier. Mhm. man su ma la doon wax sama jàng métier man ni ma jàngee métier. dem na ba ay reer ak yooyu yëpp dama naan la grawut lu ma fa fekk baax mais dañoo toog ba ñu ber ñu ñaanal ñu loolu mooy barke bi. te loolu defe naa ne gis nga barke. barke. lu ne mën na ko ci àdduna mhm. kon ndaw ñi man maa ngi leen di soññ nañ dem ñi jàng ji métier te toog ñi xaar ko mhm. ñeneen ñi nga xamante ne suñu borom da leen a dénkoon féetale woon ci geneen wet gi ñu nekkoon ci école ci université yooyu buñ mhm. découragé parce que réew mii ci kanam ñoo ko war a defar te réew xam-xam moo koy defar dëgg la kon loolu message bu may lancé waat la ndaw ñi. Mm-hmm. di ko lancé waat sama bopp ñun ñii nag nga xamante ni ñooy artisans yi yàlla dimbali nañu. Mm-hmm. xam nañ ni jamono yi li ñu yor ci ay renforcement de capacité. parce que mm-hmm. liggéey bi foofu la jëm. tey lii nii. comme ni mu Moustapha wax léegi ñu bari dañ naan ma ndax yaa ko ñëw. parce que xam nañ ni dañ ko doon importer ñu ne nañ ko ñawal suñu bopp. Mhm. di ñëw ay costume africain di ñëw ay Cuba di ñëw ay jomaay yi ñu woowee jomaay parce que ku mhm. nekk sa jamono comme jomaay mhm. ñu ñëw jomaay ay costume yoo xam ne dañ koy doubler ci biir lépp la. kon moom def naa waxatuñ liggéey émission. léegi da sol ñu naan la ndax fii lañ ko ñëwee. kon finition moom jooyatuñ ko kon non tardal bi léegi yenee tardal rek kon maa ngi woo ñëpp tamit nañu dund Médine Sénégal bi nañuy sol consommé local bi nañu dem ci ngaay di sol ci dàll yi bu ko defee au moins dina dimbalewaat artisanat bi mécaniciens yi ñu jàppale leen jàppale menuisiers yi bu ko defee bërëb yi mën a yëngu xale yi ñu mën leen a jàngal mécc ci Sénégal mën a avancé jërëjëf euh, euh, Mamadou euh, kontaan nañu bu baax a baax a baax tey ñu war a mën a jàll ci moment Hmm? moom moo euh, tey tey boo ñu doon tënkal ci lu gàtt rek. Mhm. moom mooy ci li nga xam ni mot de la fin lay doon lan lay doon. waaw donc di jéemoon li may mën a wax rek. ci hmm. mot de la fin mooy mu ah, ngi jublu ci yoon. Mhm. yoon la boo xam ne nag yombul. Mhm. ndax fal la. suñu borom nag mooy dogal. ak lu mu ci mënti doon. ku fa mënti doon demit yàlla bu ko yàlla nattoo mhm. mu toogee fa boppam mhm. mais na fa toogee xam na ko fa teg lan la mu demee intérêt boo xamante ne intérêt Sénégal yëpp la mhm. ndaxte Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar te gaal gi nañ ñaan rek mu mu jub te bañ ko wengal bu ko defee bu boobaa nag ak ñu gën a ñaax rek xale yi tamit li may wax rek euh, ñu doon ndaw yoo xamante ne ñu am patience tamit tuuti. Mhm. mais ñi fi jiitu tamit jiite leen. Mhm. ñoom it ñu am yërmande si ñoom. Mhm. parce que ndaw danga koy yërëm. waaye moom it bu mu yore jikkooy tomb saxal mbaamu sulli. xale day patient. bu patient woo rek lu lu lu mu ko fekk rek day daal di barkeel. jërëjëf moom jërëjëf Mbaye Babacar. mot de la fin bi. waaw ginnaaw bi ñooy ñëpp sant ak gërëmaat rafetluwaat émission bi di ñaan suñu wajur yi nga xam ne ñuy sàkk mhm. yàlla su mën dafa leen ndam lu yaatu yaatu yaatu yaatu mhm. fa ñu daanelee rek dañuy wax ne ñi nga xam ne ñooy dagaan baatu askan wi mhm. nanu bàyyi xel ne lu ñëpp bokk la ñuy laaj nañu bàyyi xel ne suñuy tànk la ñuy doxee suñuy loxo la ñuy jëfee suñuy bët la ñuy xool

ñëpp rek jàmm yal na Sénégal am jàmm élection yi ñu jëm nag yal na si yàlla def ndox mu sedd ndax violence bi na lool te nit ñi aussi dañuy xaw am tiitaange bu ko mhm. war a dem voter mhm. yal na nit ñi voter si jàmm ñëpp am kaaraange mhm. du ko defee aussi les forces de l'ordre wax dëgg yàlla mën a accompagner nit ñi ci jàmm ak salaam nit ñi voter dem seen kër Mhm. bu kenn botee dem si centre bi naan da fay toog ak yooyu mhm. soo botee ba pare dama sa kër nga toog xaar résultat yi lu yàlla def xam ñu loolu mhm. ñuy ñaan quinzième législature bi nekk quinzième législature boo xam ne Sénégal yëpp ñu ciy gis seen bopp euh, di remercier ñi nekk ci plateau bi di remercier waa ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan à la chaîne chaîne média donc di la bëggee aussi di nuyu tout le team euh, caractère Damzo l'homme de Ngexool futur maire ñoo euh, bi waaw ñoo ñu bëggee daal di leen siyaar mhm. alors euh, loolu am na solo moom mooy euh, comme niñ koy faral euh, di waxee rek ñun ñëpp moy tay néna la jeunesse sénégalaise ñu euh xam li ci assemblée lañuy wax lañuy def tay buñu démé ba la jeunesse di tok devant la télé euh ci ay séances plénières diko commencer ba ngone daal di ciy nekk tey bu ñu dee ba la jeunesse sénégalaise daal di lay commencé naan la article nangam article nangam article ndàngam nga xam ni ñu xam ni kon jeunes yi bon en euh, conscientiser wu nañu euh, di leen remercier di leen ñaanal di wax ni euh, ku ci nekk yàlla na yàlla defal la jàmm li nga namm ci réew mi li nga fi bëgg yàlla na ko suñu borom mottali moom mooy tamit ndaw ñi nañ leen dimbale nañ leen dimbale am na banque yi nga xam ni c'est pour les sénégalais nañu xool ndaw ñi ñu diriger leen euh, vers ces banques là yombalal leen aussi parce que ndaw bu ñëwee moom mooy jàppul ci dara nga nar ko laaj kayitu kër wala wala wala wala wala ay kayitu oto wala say say say takkaayu yaay mais ndaw moom bu ko amul comment il va faire moom mooy pour mën a mën a suqaliku pour mën a développer wu euh, ndaw yi jël nañu gaal yi ñii euh, des nañ ci géej gi yal na leen yàlla xare aljana ñi jot a àgg tamit yal na leen yàlla dimbale tam moom mooy li ñu fa dem wuti ji rek ak li ñuy séentu suñu borom jox leen ko d'ici la portez-vous bien quant à moi je vous donne rendez-vous Inch'Allah, prochainement, tu verras le numéro caractère jërë merci